waaw ñu tëniroon tey ji point de presse pour apporter suñu soutien au président Macky Sall après sa déclaration di mardi 16 février 2016 ci décision conseil constitutionnel donc ñun membre du réseau dañ ni ñoo ngeeg président Macky Sall ci lu mu def même bu fekkee ni dafa waxoon ni damay ramener mandat bi ci juróom-ñaari at juróom jaar na voie yoon yu mu war a jaar yëpp pour mu am wante conseil constitutionnel dogalul lool ndax laaj na président assemblée nationale laaj na conseil constitutionnel conseil constitutionnel bi ni ko mënuwoon wàññi mandat bi da ngay continuer donc te moom mi ngi prévoir une disposition boo xam ni dans ans dans ans dix mandats at mandat bële di ñëw dañ koy bokk mënul def lu ñaari mandat wante lu ñu gën a naqari lu ñu gën a naqari mooy ñoo xam ni dañu nekk ci touche yàkkamti yàkkam ci trop élection yi jóge foog ni ay opposant lañ wante un opposant il doit être d'abord républicain ak démocrate dangay bëgg sa dëkk ba pare bëgg ah, constitution bi lu koy doxal mënoo ni conseil constitutionnel lii la dogal nga ni noo ndax juge yi moo leen fal ainsi de suite beneen aspect bi mooy PDS ñoom na nañu nee nañu ba ñu bàyyiwul seen candidat du ñu bokk bu ñu euh, référendum du 20 mars du ñu bokk ndax dañ koy boy wante loolu c'est très normal ndax constitution bi ñoom ñoo ko defaroo te defe naa ni ñun lu ñu indi ay réformes yoo xam ni consolidante la ci fukki poñ ak juróom benn bi mooy ah, dinañ ko indi cinq ans le quinquennat dafay ñëw. comme au temps de Abdou Diouf beneen bu ci topp mooy assemblée nationale dinañ ko jox pouvoir muy saytu ministres yi ak directeur généraux yi suuf si dinañ ko jox ñoo xam ni ñoo ko war a moom leneen li mooy euh, haute collectivité des collectivités locales dina feeñ pour jàppale collectivité locale donc loolu lépp buñ ko boolee defe naa ni ñun suñu président luñ koy wax gàcce ngalaam lu ci des nag mooy suñu maire ex maire Idrissa Seck moom fukki at cees jox na ko lépp mosul dugg benn ko élection ba élection lay jëm lu ko gënaloon mooy dem tëddi France beneen bi mi ngi wax mbirum incompétence mais incompétence ak mbirum dignité du ñun la ko war a jaay Macky Sall dignité ma kenn du ko ko jaay ndax Idrissa Seck ba 2012 mi ngi réclamer ni PDS la bokk alors que ñun suñu président. buñ ko joxee euh, palpal PDS da ko faa sànni ni leen jël leen seen fala ngi noonu maa ngi dem lu ma yàlla jox mu jox ko mu jox ko lu ko gën jóge président assemblée nationale dem président de la république en faisant pratiquement tous les ministères régaliens donc loolu bu amee nit ki dafa war a xool ni lii yàllaa koy joxe te lu nekk à son lu ñuy wax nag Idrissa Seck mooy bu fekkee ni moom il aspire devenir un homme d'État war na benn seet buy wax aqulaahi taalaam di tari ay suraatu alxuraan di ko utiliser nu mu neexee wante loolu yàlla am na lu mu ci wax nee na ci alxuraan am na ñoo xam ni dinañ tari alxuraan jublu ko ci nu ma ko santaane am na ñoo xam ni dañ koy tari pour am ay nit pour am kii nit ah te seetlu nañu à chaque fois bu sonnee rek lay tari alxuraan. donc na seet digganteeg yàlla at ëllëg donc ñun réseau communal ñu ngi naan dañuy jàppale président Macky Sall ba mandat bi jeex te dinañ ko won ni ñu ngi koy jàppale à partir de l'ouverture de la campagne du référendum chaque membre di réseau communal conditionné euh, chaque euh, membre di réseau communal dina compter dugg ci fukki kër par jour expliquer leen donc une trentaine multiplier par 10 ça fait 300 kër en un jour 300 kër multiplié par nu ça nous fera 600 600 bu ñu ko multiplier par 4 ça fait pratiquement 24 000 ci 21 jours donc ñun lu ñu war mooy dinañ ko def et dañuy lancer un appel solennel à tous les responsables de Thiès pour que le oui soit massivement voté pour que Sénégal am définitivement une constitution boo xam ni yenn aspect yi kenn dootu ko tripatouiller ku fi nekk président di nga fi nekkal askan wi di nga fi nekkal waa Sénégal di nga fi nekkal démocratie ak gouvernance jërëjëf